Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak md énergie ñoo leen di may seen revue de presse dal leen ak jàmm ci yëglekaay yéenekaay yu bëree bëri xëy dellu soit tey ji ci ndaje ma ñu ubbi foofee ca jam ñaajo doon ca waxtaanee lu jëm ci yeesal yi ñu war a indi ci wàllu yoon yéenekaay bi di Rewmi Quotidien ne démb la ñu doon amal lancement bi ñeel assise national yi nga xam ne rek dafa jëm ci réforme ak modernisation jëmale ko ci wàllu justice moom ji ci réew mi di président Bassirou Diomaye Faye ma ngay xam ne ni yeesal yooyee ñuy indi ci wàllu yoon dafa war a am njeexital ci yoon ak ni muy doxee ci ci biir askanu Sénégal les éco yëglekaay na assise nationale yi nga xam ne rek moom la amal jëmale ci wàllu réforme ak modernisation jëm ci wàllu yoon yéenekaay bi xëy dippeekoo la justice à la barre ni Jomaay Fay fu mu toll nii nag mi ngi tàllal loxoom askan wi yëpp ngir ñëpp ñu daal di caa dugal seen loxo bu ko defee ñuy mën di xàccandoo di dóorandoo ngir ñëpp mën a gis seen bopp ak yoon ni muy doxee ñetti commission jamono ji nag ñoom la ñu taxawal ngir ñu fas yéene càmbar juróom-ñeenti ponk yoo xam ne rek moom lañ fa yi nga jëm ci rapport yi laa séglekaay ne yooyee commission nag ñu déposer seen ay rapport niki talaata ji ñu jëm président Diomaye fay moom ma ngay leeral ci biir yëglekaay bi ne ubbiwuñu assises yi nag ngir amal ay procès waaye danañ tànn ñenn ñoo xam ne rek jot nañoo jëf jëflante ak yoon bu ko defee ñu waxtaan ak ñoom ngir xam yenn saafara lañu ñu war a jël ci yële jafe-jafe professeur Babacar Gueye daal di koy feelu ne nañu fàttali na ci suñu ginnaaw te jéem a jublu ci li nekk suñu kanam l'info yëglekaay daal di des ba tey ci réforme yi nga xam ne rek lañ bëgg a ci wàllu yoon yéenekaay bi ne waxtaan yi door nañ ko jamono ji ca jam ñaajo moom njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye di xam ne ne suñu système judiciaire bi nag dafa soxla bu baax ngir ñu daal di koy yeesalaat te loolee nag dañ ko war a amal bañ ngir mën caa a liggéey ngir taxawal ab système bu dëgër boo xam ne rek dafay ànd ak leeraange jëmale ko ci carrière magistrat yi taxawal itam nag ab régime de privation de liberté boo xam ne rek dañu koy encadrer bañ a favoriser kenn ci anam bi ñuy amalee traitement ci wàllu yoon nañu xam ne daal li ñu bëgg jamono yoon di doxee ci anam boo xam ne rek ñëpp dañ cey gis seen bopp ngir démocratie bu Sénégal mën a suqaliku bu ko defee ñu mën a am gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple le soleil yëglekaay daal di àddu jëmale ba tey ci kàddu yi nga xam ne rek président Bassirou Diomaye Faye yëkkati na ko ca ba ñuy ubbi assises yi nga xam ne rek moom la ñu jagleel wàllu yoon ci discours am nag ma ngay xam ne moom jiitu réew mi na ma ngay woo ñëpp nag ngir ñu daal di weccoo ay xalaat yu leer yoo xam ne rek dafay ànd ak dal te ngir bu ko defee nag ñu mën a réformer waat lépp loo xam ne ay jafe la ñu koy ci wàllu justice justice loolee bu ñu ko defee nag daañu mën a moytandiku nag lu ñu dippee république des juges waxtaan yi nga xam ne rek moom la war a amal ci les commission daañu ko doxal ci diggante ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai jàpp ñeenti fan ci weeru juin atum 2024 Sud Quotidien daal di àddu jëmale ci dialogue bi ñu door niki démb foofee ca jam ñaajo yéenekaay bi ne lu ci mënti doon daal la ñu cay xaar ñeel assises yooyee bëri yéenekaay bi di Vox Populi xam ne rek dañu koo jagleel dame justice yi moom la ñu ubbi jëmale ko ci wàllu yoon dafa yegsi ci waxtoom ndax Sénégal demoon nañu nag ba nemmee ko ab divorce boo xam ne rek am na ci diggante wàllu yoon ak askanu ci biir yëglekaay bi moom Amsatou Sow Sidibé di xam ne ni dafa am droit fondamental waaye na xam ne it askan wi dañoo am ay droit yoo xam ne itam dañ koo war a sauvegarder Aminata Touré di ko feelu ci biir yëglekaay bi ne assises yi nga xam ne rek moom la ñu war a amal ngir réformer waat wàllu justice nag taarix moom dina ko bind ndax lu ni mel nag càkkutéef bu yàgg la boo xam ne askanu Sénégal yàgg nañu koo jooytu ngir ñu séparer lu jëm ci wàllu politique ak lii nga xam ne rek moo jëm ci wàllu justice des ci beneen yëglekaay daal di wax ci leneen mu soxol la quotidien yëglekaay mi nga xam ne rek àdduna tey ji nag ci li ñu ko yóbbu ca Inde moom général Kandé bi nga xam ne rek ma ngay rébélé wu jamono ji nag kii di Gaël Maguette Ndiaye ngir mu wutu ko ci bopp état major de l'armée de terre moom moomee nag di général Kandé jamono ji mer na bay futtu jàpp ne ay sanctions la yoo xam ne rek dañu koo teg ci kawam te liggéey bi nga xam ne rek jot na koo amal ci armée de bi waaye tamit doon koo xam na ay jéego yu am solo jàmmarloo ci digganteem ak MFDC yi ngir jàmm Casamance jàpp na ne nag boobee affectation teguwul ci dëgg waral muy xamle ci biir yëglekaay bi ne dina attaqué boobee décret leneen loo xam ne rek enquête yëglekaay àdduna jëmale ci niki tey jii bokk na ci Pastef ak taxaw Sénégal yéenekaay bi dippeeko la guerre des égos boobee ba tey ñu gis ne xiiroog ngaayoo ci diggante Pastef ak taxaw Sénégal jamono ji nag ginnaaw ñu ngi waajal ay élection législative yéenekaay bi ne ndax beneenub yoon du ubbeeku nag ngir ak juboo am ci diggante ñaari parti yooyee ne nag taxaw Sénégal jamono ji nag ma ngay wut ab légitimité ci wetu parti socialist le temps mooy yëglekaay xëy àddu jëmale ci wàllum napp gi yéenekaay bi ne bateau étranger yi nga xam ne rek dañ leen a tere woon ngir ñuy napp ci waaxu Sénégal ba naga ni si nag loolee ñu ngi koy wëyal tere gi daal ay rumeur rek la ko jàppee ndax ba naga ni si suñu géej gi ñu ngi koy caxat-caxatee àddu jëmale ci wàllu tàggat yaram stade yëglekaay daal di wax tey ji nag ci lu jëm ci arrivé yu Sénégal ñeel regroupement bi nga xam ne rek moom la ñuy amal ngir waajal jongante bi war a dox ci seen diggante digganteeg RD Congo yéeni kaay bi ne Sadio Mané ak Koulibaly nag daañu fi yegg si ñaari fan ci weeru juin Lamine Camara moom la 3 juin la fas yéene fekk si équipe nationale lu jëm ci final bu coupe IFOA yu jigéen yi nga xam ne rek am nañu ñaar fukki at Sénégal ak Guinée Bissau ca stade Lat Dior la ñu koy amalee Lions yi jamono ji nag danañ def seen kéem kàttan ngir amaat seen ñaareelu titre jeexaleek lu jëm ci wàllu làmb ji Gris 2 mi nga xam ne rek moom moo daaneel doomu dàngu jamono ji nag ma ngay xam ne nag ne bàyyiwul kenn képp ku ñu ko jox rek dana sëgg ak